jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Fass Mbao seet fi xale boo xamante ni champion la ci làmb yi barki démb gis ngeen li nga xamante ni mu ngi koy waajal bis bu bu garaaw boo xamante ni Idaali ñu ngi promoteur bu mag bi moo ko tëgg vingt 29 février ñu war koo seet mbër maa ngi nii sampion ah siyaar naa la. mbër yow sax tegtal bi métti na la. waaw dara di jégalu rek di jégalu rek. yaa ngi ci jàmm waaw sant yàlla bu baax waaye gars Modou Feugeul la lay wuyoo waaw Modou Feugeul lay wuyoo naka la yaa ngi jàmm tawféex naka jàmm ji waaw sant yàlla bu baax waaye moom faw ñu ràcc mën a toog def ba mu baax waaw noonu la ñuy def sax nañ egg ci daara ji xool waa Thiaw sa xiir nuñ toogee Thiaw sa xiir fee lañ ne Thiaw sa xiir ay fii depuis 2009 ñun ñu ko moom ah, Ama Baldé fii la sàccee Thiaw sa xiir ah fii la ko jëlee fii la ko waaw ci mbaara ji fii suñ grand poula moo taxaw na moom moo créé Thiaw sa xiir waaw xëy na bu ñu yeggee foofu moom dina waral lu tax mu créé coow sa xiir bi. yaa ma gën a xam daal. ay ca champion Modou Feugeula. ayca gaan <laughs> doomu nday. doomu nday borom États-Unis. maa ngi nii de doom day Feugeula rakk Feugeula doomu Feugeula. <laughs> waaw préparé faj bu mu gàccee yëpp. ndeysaan waaw. di wax gars yi am nañ problème. Mm. ku bu war Feugeula rek ñaan naa yàlla war sa kaw daal si kàttanu yàlla. ñu toog yaatal lool. noonu lay demee sax nañ egg si daara yi. maa fi yaa baa naa leen de. Gaynde Njaay Fall looy naan ni <laughs> xasum loora yéen leen a tooy xanaa Gaynde Njaay maa ngi leen di siyaar rek gars yi dañoo tooy nag dëkk bi mooy loolu nu ngeen démb dundee démb bi nu ko dundee démb na de Gaynde Njaay woy démb dégg naa gars yi liggéeyoo leen ah, bi daa poussière saa waaj xeex xanaa <laughs> ay ca gars yi. noonu lay demee. mbër maa lay siyaar Modou la waa ñu ngi delloo siyaar gu wér waaye. nakay tey sant yàlla bu baax. na fekk naa la ci biir gars yi nga toog de nu demee noonu. waaw naa gars yi nii nii sumay gaañ lañ depuis démb ah. ñoom amuñu seen fay fii mooy bërëbu liggéeykaay bi. fii moom ñun ñëpp wax yàlla fi la ñuy suturoo. du ñoom kenn ko ñu ko yàqal daal waa di sant gars yi nii aw ma luul gars yi nii nii ñoom ñëpp suñu xëyee ñooy bokk dóor waar ñooy liggéeyandoo ñooy wàccandoo ñooy defandoo lépp daal waaw aw ma seen fay ñoom ñëpp waaw. Modou Feugeula loo bokk ak Feugeula da ngeen teg teg. Feugeula mag la ñoo bokk ndey ak baay. Mhm, ñoo ah. mhm. nga dugg ci làmb lu la ci dugal. làmb lu ma ci dugal maanaam bañ doon bañkat rek parce que yàlla xam ne ni Feugeula suma mag bëgguloon ma bëre. wax dëgg yàlla bëggoon ma doon mbër parce que am na leneen lu ma yéene loo xamante du làmb xëy tamit làmb yàlla moo koy nattoo ay doomu aadama te nekk naa bañkat boo xamante ni tamit bëgg naa képp ku ko daan tamit gëm naa ne dinaa daan ci làmb loolu mooy sama vision. Mhm. kon na nga jël sa tànk dugal ko ci làmb ngir képp ku daan sa mag nga daan. waaw loolu moo dugg ci làmb. Hmm. Mhm. mais gis nga làmb ni mu mel paq-paq yi ne ci làmb métit gi ne ci làmb mhm. nga xëy dugg ci beneen sport boo xamante ni. bari na ay gàllankoor sa mag fëgg la sax xam nga wax na. Mhm. làmb ji neex na ci moom. Mhm. waaye am na côté boo xamante ni métti na ci moom. waa dëgg la làmb am na ay gàllankoor. métti mhm. na tamit benn côté quoi. ci kaw bu la gars yi seetaanee. day métti trop mais man yàlla def na moom gars yi seetaanuñu ma quoi. parce que sama côté bu bari lu ma manqué lu nekk rek. suma ma grand Zal Ndir moom moo taxaw ci côté yu bari. ba salle de musculation bi may entraîné mat 6 mois yu nii moom moo koy fay. bërki démb la yëkkati cinquante mille jox ma sama combat bi le vingt neuf bi rawatina gars yi nii sama combat regroupement yi lépp ñoo koy def tey ñaanu ma yàlla su ma doxoon fii ma sax ñoom ñoo yëkk seen xaalis cotisé ko de benn cinq mille sax moom laay fajoo comme aw ma seen fay ñoom ñu toog nii ñoom ñëpp waaw. kañ nga dugg ci ci ci làmb. làmb dafa gum naa ci deux ans. mbapat nga waaw mbapat naa. mbapat naa fan fan nga mbapat. bëri naa Fass Mbao gi. bëri naa fi bëri naa Jofior ñaar yoon. bëri naa Mar. bëri naa mar bëri naa lam saar tamit. mbapatu bindu nga doon def wala da doon dem ci nome no bu dee Diofior moom mbapatu bindu la. Hmm. waaw bu dee Fass mbaa mbapatu nome la. Hmm. lam saar tamit tournoi laa fa bëre waaw. Hmm. kañ dugg ci arène. arène bi deux ans laa ci defagum ren laa ci am trois ans. ñaata combat nga bëri arène. trois combats laa amagum bi mooy sama quatrième combat le samedi bii nii la am quatrième combat incha allah quatrième victoire si kàttanu yàlla. kon fi mu toll nii trois combats nga am trois victoires. waaw sant yàlla rek. trois combats sa grand fëgg la borom États-Unis ci bakkan bi la la teg. waaw moom nee naa la sànq maa la wax sama biir wax. Mhm. comme dañ ne ginnaaw papa taaw moo topp. Mhm. man defuma ko mag papa laa ko def. Mhm. wax dëgg yàlla chaque jour daf may woo chaque jour te man moom bu tukkee sax man damay am problème. ndax lan du nekk. du nekk ndax sama combat tout le temps daf may woo loo nekk préparation yi ba tey entraînement gaañu woo ba suba yaa def lii suba yaa def lee tout le temps man daf may gêner benn instant sax su ma muy nekk sama wet di li may def mais bu tukkee man damay am problème parce que may bërewaale ak ak côté moom tamit comme nekk fi damay bërewaale ak côté loolu tamit daf may xaw a marqué trop daal. Mhm. bu nu muy def. moom daan dem wuti débat dégg wala da laa am nga demal ak sa. non lépp moom la man aw ma dara man defuma dara damay xëy tak sama sareet ñëw ànd ak gars yi dóor waar wàcc ñibbi fëggaay dugg mooy génn yëkkati xaalisam def def ma ci dara wax dëgg yàlla amu ma leen lu ma ciy def léeg-léeg sax du ma entraîné léeg-léeg sax du ma entraîné damay dawi ñëwaat mooy loolu noonu pare naa. ñan ak ñan nga daan combat ren. sama premier komba maak euh, mbay Mbaye Difoncé numéro 2. numéro 2 waaw. deuxième combat maak euh, Zarko 2. troisième combat maak Saamu Yaboy bu yoof bu yoof waaw. Mhm. mooy trois combats yi quatrième maak Soldar la. te incha allah fu moroomam yi jaar rek lay jaar. soldaar menn mi. soldaar bu Abim Ndiaye waaw. soldaar weex na de. Hmm, waaw loolu la ñëpp wax lu ñëpp wax mooy dëgg mais yàlla baax na. Hmm, yàlla baax na waaw. soldaar moom mooy loolu ku tëgg làmb jooju mooy journée idaali ñu ngi bi. waaw journée idaali bi la waaw incha allah waaw. ngay waajal nooy waajee ci wàllu mobilisation say waa koñ ak sa grand ba ne eh, fëgala ma ne fële ne ci guddi gu bër setagul ndax moom armée la jël te ku ne xam ne ne armée champion la xeexkat la bërekat la fëgala day jaay lu xotteeku armée di xotteeku na de non comme li nga expliqué noonu rek fëgala moom mbër mënta xotteeku ci kanamam sama gis-gisu bopp man te man sax du ma ko seede nit ñi ñooy seedeel seen bopp ku xam fëgala xam ni banditisme si moom la fekk baax armée la ñuy wax moom am problème moom bu la takkul du la daan armée ci boppam. takk rek la am bu la takkul du la daan man loolu lu ma leer la. téye naa ko fii na ko yow bu ñu bëree ma daan la waat ko ci yàlla te bu ñu bëree ma moom ma daan ko armée loolu moom sama rêve la ci carrière sama carrière man même bu dul fëgg la ku ci mel ni moom ak Tafa Mbër ak Ada Fass <laughs> ñooñu ñetti ñoo ñetti ñooñu noonu man sama rêve la man. am naa beneen xarit boo du fëgg la la tudd. <laughs> waaw mais bu am fit osé. soxla. du caaxaan wallaahi dafa am fu ma ko teg fu wóor. Mm. dafa am fu ma ko teg fu ñetti ñooñu noonu. wallahi yàlla ma tim fu ma bëree ak ñoom daan leen teguma ma ko fenn nag sama gëm laax laa teg waaw ñooñu moom assuré naa lool dafa am mbër. Mhm. bu benn baraak. Ada Fass Ada waaw. Ah, ñoom ñooñu mm, mm. am mbër Ada Fass sax laa njëkkee Ada moom lan moo tax nga gis nga ni mu def bébé bis mi keroog. non méttiwul barke Serigne Bamba méttiwul ñun xewar gi lañuy ñuy dundee. gis nga entraîné ba dee ñëw naan xewar yaa ma gën a xam dam lekk cere ju bari toog. Ada Fass benn mbot la fi def mbot bu rëy yaa ma gëm ñëpp di ko coow te bu teew sa sa trimestre bii du la mbot man damay jàng mbër xam munu ma dara nag wax dëgg yàlla munu ma dara mais maa ngi jéem mais ñooñu ñooñu ku ma ci am mën naa war ni doom war. ñaata at man euh, maa ngi ci vingt sept ans. vingt sept ans waaw. Mm. Mhm. nga dugg ci làmb fi mu toll nii sa sa gëm-gëm ci làmb. Mhm. mooy lan fi fi sa mag toog tànkam nga teg fa sa tànk wala nga dépassé niveau boobu. non dama koy dépassé si kattanu yàlla. parce que man doonu ma woon doonu mbër. dama doon liggéey wàcc loolu laa gëmoon. mais man dama gis samay qualité man waxuma ko de nit ñi ñoo ma wax bàyyi liggéey dem bëre ji. loolu moom ma dugal ci làmb man moo tax ma bàyyi liggéey jéem a jàpp ci làmb te actuellement ni ma waxee nii sax téewaguma làmb xëy na nit ñi ñu ngi may poussé ma téye làmb mais wallaahi azim téewaguma làmb parce que entraînement bi war des na ci man. bëre bi ma war a bëre man li ma bëre mbapat bëre gu ma ci arène bi parce que ba sama combat bu mujjee bi sax am nañu ma xaw a mere ndax génn yi doon génn def ay short de libéré yooyu noonu moo tax mais bëre gu ma ci arène bi pour man pour ma bëre foog ñu jox ma ci boo yooyu ma la wax noonu ku ci mel ni Arafaas moom war nañu laale maak ak moom sa journée pour ñi ko seetaanu woon kan moo bëri grand combat bi non grand combat bi non exactement fekk ma fa quoi man dama ko mujjee dama mujjee génn. yow de da ngaa daan rek dem sax. damay daan rek dem wax dëgg yàlla. ndax da ngay xam ni tôt ou tard di leen fekk si. waaw looloo quoi moo tax xam nga rek yàkkam day ñëw féete victoire bi ak suma gars yi nii sama joueur yi. ci mel ni Daouda Balla ñoom tamit ñoo ñoo ñoo yore wàllu mobilisation bi quoi. koñ ba lépp lu fa nekk ci wàllum yëgal bi ñoom ñooy dugg yëgle ñooy def set setali ñooy ket ñooy jaay tiset yi bee ñoo koy jaay lépp daal ñoom la bu dee waa caw sa xiir ñoom ñooy luye oto kaar yi ñoom ñoo koy res la. nee naa la maa lay wax suñu biir wax. caw hmm. sa xiir fii depuis lañ ko fi sanc comme Ama Baldé dèjà la ko jëlee te xamul lu xiir yi signifié maa ngi dégg mu dem géej di lépp ay léebam naan ay dañoo dàq ji kii dóor ko xiir nangam nangam affaire bi du foofu affaire bi gone yi moom a ngi nii toog gars yi ñoo ko moom depuis 2009 comprendre nga gars yi ñoo ko moom comme bu baax te ñun Ama mais dañ ko gën a téye ñun Tawfekh dañ ko gën a téye parce que depuis 2009 lañ ko créé téye ko comme loolu ñu ngi ciy sant yàlla quoi. man de xam naa ne li ma jaaxal fii Tawfekh tarkindaay mafia mërëde bi man daal ma waaru man xam naa waa waaw loolu mooy gone banlieue rek. mërëde bi mooy lan mërëde ba mafia. ah mm-hmm. noo baari. maa mën a rë mën a rëbi. ay bañkat lañ maanaam mooy bañkat. Ah, waaw waaw mafia boobu. ku ponkal bi mu ngi états <laughs> a <laughs> mooy bandi ko mooy borom États-Unis moom mooy mafia moom mooy borom mafia mënër bi daal. Mm-hmm. waaw loolu moo ko créé moom ak ay booyam Lamsar. Mm-hmm. di gaa di siyaar ñoom Pabba gaa yëpp di leen nuyu au mm-hmm. ñoom Duudu ñoom Pambay gaa yëpp daal. maa leen di bége bu baax a baax a baax a baax. mafia mënër bi tamit ñu ngi siy jàpp jàpp ñu fëgal rek bàyyi rakam. parce que man fa laa juddoo. am saa fa laa juddoo doon baas ay mbapat. dañuy baas mbapat balaa deux balaa dix heures jot sax ñu nelaw. mbapatu ma masamara ñun ñoo doon baas di yéenu seesi di indi balaa 10 heures ñu newar ñu nelaw comme dèjà loolu moo ñu dugal ci làmb tamit waaw. kon kon léegi xam naa ne liñ amoon ci waxtu jot na mais. ngir wane ni ñi Sénégalais yi rawatina ñi seetaan wasaare làmb am na yeneen champion yoo xamante ni bu ëllëgee bokk nañ ci ñuy teewi làmb buggoon ñëw seet si la ngir waxtaan ak yow ngir bu ëllëgee boo tolloo ci kaw ci làmb ñu mën a wane archive yoo xamante ne àdduna da koy fàttaliku. comme ma sute ay champion wala. ndeysaan bu ëllëgee. jàpp nañ ni champion ngay doon incha allahu rabbi ndax fi nga teg sa tànk ci làmb waaye boo demee ba yéeg ci kaw ba toll fi Balla Gaye toll wala nga toll fi Modou Lo toll wala nga dépassé niveau bi fëgg la toll ci làmb bu ëllëgee buñ la wanee image yi nga ree na naw mafia baa ngi ni fii laa jaar mu fàttali la lu bari ci làmb mu fàttali lu bari ci làmb di ñaan yàlla bu boobaa tamit ñun ñu fi toog ni yëpp yàlla bu fi kenn manqué di ku ci nekk nekk ci lu la gënal nekk ci ci lu lay avancé loo parce que tamit xam ne ñëpp sareet xam nañ sareet dafa metti ku ci nekk am lu gën sareet loo xam ne du doon caaxaan quoi waaw yàlla def ñun ñëpp waaw ku fi tukki gënal rek nga nekk Europe tamit soit tamit nga ne fii am loo ba doo sonn sa yaay du sa dara du sonn tamit waaw loolu kese la quoi. Mhm. lay jaajëfal bu baax Modou Feugueleu la. Mhm. waaw di la xanaa di profité di gërëm gaa yi di gërëm euh, gaa yi may jàppale ku ci mel ni grand Zaldir sànq wax naa ko. maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm waa Jofior bu baax a baax a baax aw ma seen fay gis naa nu ñu ma jàppale ci combat bi di gërëm waa ñiit waa Baraar waa Gànket waa Boqol waa Séer waa Kër Mama Sarr comprendre nga sama tund yaay bi yëpp siyaar naa leen gërëm naa leen waa Fass Mbao aw ma seen fay waa Fass Mbao a <laughs> ma seen fay dañ may jàppale bu baax a baax a baax a baax waa Thiaw sa xiir bàyyiwuma kenn ku ci mel ni pen suma waay la gaan bii Elaz Medoune Petit Diané kii champion la Petit Diané Ndiaw Ron Pula Pula Cafka Modou Ndaw Youssouf Fall grand Bouba Fit kii xam nga bu baax Bouba Fit champion la comprendre nga Bouba Fit mooy moo fi toroxal moo fi dóor booy bawal dóor yi métti daan ko Bamba suñu Baye Fall bi kay moo géré cant yi cant yi ñu def daanee pare cant yi kay moo ko war a géré mañang di sant waa Thiaw sa xiir yëpp daal ak sama booy ndaw yi ñoom Pape Diagne Baba Jibi Modou kii sama toomaa la booy yëpp daal sant nañ leen gërëm leen ak seex bi bàyyiwuñ kenn daal bàyyiwuñ kenn ak waa Pikine bàyyiwuñ kenn daal waa Lamsaar ma mën a rëbi waa États-Unis grand Doudou Dramé bàyyiwuñ kenn daal grand yëpp ku lim juum. loo koy wax. sama adversaire lu mooy dara na ñëw rek. jaaxal yo jaara ci turam wax ko mu dee. Eric ñu naan soldaar maa ngi bëgg arène nationale Sagna la la tudd ñu naan ko soldaar bëgg na arène nationale boo ñëwee nga xool nooy tëddee rek ma teg la fa ci kàttanu yàlla. ngeen xeex. non du moom wax dëgg yàlla du ma moom. parce que nekkul niveau bu mooy xeex ak moom. ko bëgg a nax. non du ma ko nax. dama séntu ci fetal nga fitt ñu séntu la ci fitt nga fittal. non dama bëgg ñu bëre fëgg damaa tere dóor fëgg dafa maa tere dóor bàyyi ma jaaf ko daan ko si kàttanu yàlla. Hmm. yee yaa ma gën xam. ñu lay jaajëfal. waaw dara ma tamit di leen sant di leen gërëm baax a baax a baax yéen parce que geste bi ngeen def nii lu rafet la quoi. lu rafet la xool mbëri ndaw yi defagul dara ci làmb ngeen leen di dimbal di leen génnee tamit lu joué ci carrière mbër la quoi pour man di leen remercier bu baax a baax a baax a baax ok jaajëf mbër yi maa lay ziar bu baax a baax a baax ba tey waa ji doon làqatu kenn mënul xam fu mu ne ci àdduna gis naa ko mu ngi nii Bouba Fine maa lay ziar. delloo ziar. na tey sant bu baax. maa ngi am jàmm maa bu baax. maa la gis nga ñëw euh, nu mu tuddate diggante jàkkaarloo Siteu ak euh, ak ak ak Papa Sow. mais mbër damaa ñëw gis la nga mel ni ku xabtalu keroog lan moo xew. fan noonu signature ba. signature bi. waaw bi dafa demee noonu rek xam nga Siteu moom dafa yëg nit ñi. te Baye Fall la gaa yëpp ñoo ma gën a xam wër na maam Serap Fall Siteu day am lu lu kawe lii nii wër na maam Serap Fall nit ki nag du la yëg yow nit bu la yëgee euh, lan nan ngay def. yow laa wax yow. yow nit bu la yëgee. Hmm. comme man ma yëg la. nan ngay def da may ba dàq wala lan. déedéet dama ah? lay ñëw jël la taf sa waaw kon jeex na Siteu dafa yëg dafa yëg ma yëg ko wër na maam Serap Fall barki maam Serap Fall te Baye Fall la nag di sant waa Fass Mbao fépp. waa Fass Mbaaw ñëpp di sant booy fii nii ñoom njaw ñoom petit ñoom mañang mañang borom kenkaa yére yi yàlla na am ay kenkaare yére yu bëree bëri bëri ku ko yére lu bon yàlla na këpp ci kawam yaa ngi dégg maa ngi gërëm ñëpp ñoom pullo ñoom pen ñoom ñëpp mafia bi ñu ngi nii wër na mam serafal li ma bëggoon waxtaan mooy ci làmb waaw buuba fit lan moo tax ñu gëj laa gis lan la da ngaa bàyyi bëre wala buuba mañ xamoon nekkatul wala buuba weqi na lan la. kese sa nag yow di ma gis naan ma damaa bàyyi bëre nag bàyyi bëri duñ ko def dañuy def nànk-nànk rek. am na benn mbër bu ma laaj benn jour mu ne ma ñi bàyyi bëri na waaye dañ koo ñemewul a fësal. waaw est-ce que bokkoo tamit yow am na yow ñun tamit yow bu ñu bëggee bàyyi bëri dañuy bàyyi bëri ñëpp dégg. Mm-hmm. mais ñun làmb lañu am. ci làmb damay gore ba dee wër na Seydina Mohamed laa la waat ne nii te dinaa ko dimbali ci làmb man yow booy fi nekk nii nii yow booy tànguñu wër na Seydina Mohamed laa nii yow yow lan moo tax nga bëgg ma génnee ci làmb damay laaj yow mi laajte yow ma la de damaa xam ni buuba fit ma ñu xamoon. Hmm. ci mën a bëre bi ci mën a xeex bi ci am jom am fula ba tey dégguñu combat buuba gisuñu combat buuba ma yaakaar buubaay daw gaay dinaa fi defaat loolu noonu ngay gisaat léegi nii te du yàgg wër na mam serafal billaahi wallaahi promoteur yi ñu lay contacter non yi man maa doon mala sum waay delloo am nay combat mala sum waay yi ma doon wax ma maa doon rejeté pour waaw gën a duy sama bopp mu fees dell waaw di gërëm nag Siteu nag Siteu mi dem jël xaalisam fayal ma saal fu muy dem entraînement woo ma ñu ànd dem wër na Mame Sera Fall di ko ñaanal ci combat bii mu jëm si ndam lu rëy bu sedd ci kawam man maa ko ñaanal loolu wër na Mame Sera Fall te da ngay am at Modou Feugeula tamit am ndam lu rëy waaw sama gaa yi nekk Fass tamit ñi am combat ñëpp am am ndam waaw dinaa ñëw ci Siteu léegi yow comme dañ la doon wax ay adversaire ngay bañ ñooñu yan adversaire nga ma mën a wax ci ñett mbër yoo xamante ni yaa ak ñoom combat bu neex la. bu koy ba arena mais géej bii nii nu mu tudd sax ki ma doon tëkku ay góor a yaa ngi dégg ay ñeneen ñi ñun ñun jëlul. barki Seydina Mohamed laa la wax nii ma def ko comme ni ma defoon Thérèse Ndiir man ponkal jaaxalu ma ponkal laa gën a mën a bëreel wër na maam Serafal du question dara ay ponkal ngand ngandaloog yooyu noonu du question loolu de dama mën ci ponkal wër na maam barke alxuraan nañ ma ko jox. góor wala kan wala ñu jox ma gaañ buy dóoraat di toog nit ñi di toog rek gars yi ñoo gisul loxo bi rek non non ki nekk doomu dàngu wër na Seydina Mohamed. hey yii hey. buuba buuba sa gaa yaa ngi nii de ma <laughs> fekk la ci biir gaa yëgal de. la man sama fit géej la tànk jeexalu ko wër na Seydina Mohamed ma songu góose bi góose bi du ma dal te balaa moo jëkk ma dóor ko mu toog wër na Seydina Mohamed gis naa faa yi wër na Rasulullahi ñi dama leen daa xeex barke alxuraan wur na maam Serap Fall yow ñii man su ma duggaatee su ma duggati waatee ci làmb ji rek nga ne buuba dugg dugg ci waat ci làmb ji dara du yomb wur na Seydina Mohamed. loolu moo la téewoon ba ba ba ay yaa ma gën a xam ay problème yu ndaw la woon sama kilifa jël ma yóbbu ma ci wetam ma toog ci wetam ba ab mu demee nii mais ñëwaat naa tamit fii laa dëkk yaa ngi dégg damay ñëwaat incha allah yàlla na ko yàlla dogal waaw yàlla may ñu kattan bi ñu ñëwaatee waaw ñu def fi lu dara jarul. waaw di la nag yow di remercier sa caméraman waaw di ñaanal ñëpp ñu am jàmm waaw ndax jàmm rek mala su mbaay moo fi mën a nekk fii ku yéenewul nit jàmm man tamit après day këpp sa kaw wur na rasulullahi nañ ñaan jàmm rek jàmm nekk ci Sénégal nekk Fass Mbao nekk fépp waaw ñu ñëpp ñu am jàmm rek gis nga li li dafa neex nga jóge fenn ñëw gaare sa oto ñëw jël gaa yi après ñibbiwaat ci jàmm quoi li dafa neex ñëpp nañu am jàmm rek waaw lu ma fi wax bu fekkee dafa ñaaw rek maa ngi jégalu waaw rafet na yow maa ngi ma Omzo booy bi. ban booy looy daw. yàlla tere. Omzo dara dara ba mooy loolu. waaw. waaw gars yi di rek di leen bëggewaat. waaw. di ñaanal sama champion bu ndam lu sedd guy. waaw yàlla ñaan yàlla yàlla yóbbuñu si jàmm. an waa ñu si jàmm xam nga booy bi mu am. bi mu am moom. moo xeex ci àdduna. waa loolu la gars wax de. mais man ki ma ki ma yor wóolu naa ko wóolu naa ko sa waay mën na xeex mën na bëre te doon rakk fëgale rek jar na lu ne waaw mooy loolu noonu yalla xam doy na daal mais boobi daal na waaj rek li mu waaj na ko xeeb bu bés baa dinañ ko duma daan ko ñaanuñu ko dara dinañ ñëw ñëppay ñëw dañuy dàq sareet di ba jaru jaruñu oto de moo déggoo li ma la si kaar yëppay dem stade Pikine jege na nii la ñuy jaar rek bëti dem stade fët mooy loolu nañ kaar yëppay génn bu soobee yàlla jaajëf jaajëf kontaan continuer jërëjëf Serigne Touba kooku maanaam après lamb da ngay comprendre la maire maîtriser kontaan continuer ah loolu de dina neex. bu xaayee kontaan continuer. bu ñor na bu xaayee waaw ba di leen bëggee rek. waaw comme lu sa wax rek la ñuy moom borom baax la quoi. moom ñun la nekkal fi bëggu sax kenn meer fii su gisee sax ngay xaw a am mer nii sax dalay woo nii xam nga rek xaw am nu ma la defalee nii mu doon sampion boo xam ne tamit gëm na lu muy def te am na jàmm fii daal maam bu mu fi ñëwee ba tey ma amaana tamit maa ngi jéglu si kàddu gi ñun la fekk si mais bu ñu fekk see ba tey yàqul dara day seet sax loo xam ne sax day ñagas sax mu koy liisal waaw moom moo ñu jaral daal maanaam combat su jotee ñun ñu dagg suñu yite yëpp dem waaw di préparer làmbam di ko ñaanal lamb ji di ñëw waaw su arbitre prix rek na doon prix dib rek ñu ñibbisi waat 29 yéen ñëpp di ngeen waaj. le wuy sama pare nañ. pare nañ. national pare nañ beneen bi tamit xoolal di gërëm buuba xoolal jëluma ko kii ñun dafa ñëw maanaam ñu dafa ñëw bëgg ñun waa Thiaw Sakhir bëggul dara lu ñu metti fii bëri na ay champion mais moom dong la ñuy gis mbaar bii nii ngay gis su daanoo moom mooy dem ñaay dagg ay bant indi ko ñu dexawal mbaar bi bëggul fii kenn ku ñu wax lu metti soo ñu waxee lu metti day mel ne moom nga ko wax amul lu mu ñu jaralul moom moom tey ji su amoon combat moo xam ne jaral nañu dina gis leneen loo xam ne sax si xar kanam yaa ngi ñëw ñoom ñëpp dinañ bëri day ñëw te ñooñu ñu mun laaj sax ñooñu noonu sax moom amaana dafa leen bëgg a këlamtikoo nii rek mais du moog ñooñu du moog ñooñu barki alxuraan di gërëm gaa yëpp di gërëm gaa yëpp di gërëm sax <laughs> di gërëm sama gaan ki pen kii mooy sama gaan fi waaw mooy sama gaan ayca waaw kii nii nii maire bi nii dama ko jëlal bu baax jabaru père Ibrahima Mbaye la père Ibrahima Mbaye bu Faas père Ibrahima Mbaye bu Faas soxnaam la mooy suñu yaay Far Sène dafa ci liggéey fan yële ci ginnaaw yaakaar naa yëg ngeen ko waaw moom la ñu doon rendre fi ni suñ cant yi ñu doon def fan yii nii nii di sant doomam Awa Mbaye bu baax a baax a baax a baax suñ combat mooy ceeb ceeb yi yox ñu lekk ba suur dem daan ak dogle mafia dogle bi waaw sant naa ñëpp gërëm naa leen bu baax a baax a baax suñu père Ibrahima Mbaye bu Faas daf ñuy jàppale bu baax dañuy conseil lu rafet a rafet di ñëpp di gërëm ñëpp daal waaw sama yaay ji daal mooy loolu noon open presse bi suba la incha allah si kattanu yàlla Télémam Diarra sant naa suñu yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana xaare fa mbooloo mi jullit mbokk yi loolu lañ leen doon wan ci émission wasaare làmb beneen daanaan jaa ngeen jëf incha allah ci beneen xew-xewu